papa ngi nii te ku ne xam na ne moo sañ ci Jàmbaar Wrestling Academy ànd kook ay kilifa ca Parcelles Assainies bi mu ko sañcee ay mbër fekk si ko fa bokk na ci Garga 2000 ñu gis ne dafa mel ni ni nga ko téye noonu la la ndax wax na lool ci euh, ber eh, ci biir interview bi mel ni kon bés bi mu jëm nii nee na sax combat combat bi yow yaa ko gën a bëgg papa Garga 2. waaw leen nuyu mbokk internetu Equivox yëpp. Mm-hmm. jaajëfal ñëpp. di jaajëfal tamit promoteur bi nga xamante ni moo taxal combat boobu di journée espoir bu mag a mag a mag te yàlla journée bu neex mm-hmm. ñaan mbëri si am combat yëpp yàlla indi leen ba ci bés ba mm-hmm. ñëpp am jàmm mm-hmm. ñëpp dal ko ñëpp fekk amateur yëpp ñëw ñu daje si bés bu rëy quoi incha allah rabbi yoo xam ne journée bu mag la journée bu neex la wax dëgg yàlla waaw côté contact yi nee ma muy yow muy Modou Lo muy Gora Sock muy Franc yéen ñëpp kenn manqué wul yéen a ngi di liggéey macha allah loolu lu andi loolu cohésion yëkkatil micro bi tuuti lenn kese la rek de waaw ñun seen ay mag lañu ñoom suñ ay raq lañu jox ñu cër du mat sëkk jox leen cër yéene leen aussi loolu rek mooy problème bi suñu sañoon ñoom ñooy mën ci làmb ji hmm. ñoom buñ sañoon ñun loolu dinañ am ci làmb ji ba tax na moom suñu ànd moom daal yàlla daal moo teg loxo yàlla ñu yàlla gën a jàppale ànd bi gën a rafet rek incha allahu rabbi aha nee na ma ci bëre hmm. ci xeex hmm. moom jàpp na ne moo garga deux moo ak maama Lamine saa buñ jàppantee làmb ji moom day jeex loolu la wax de Garga 2 ku xam-xam ne champion la bëreekat la aussi quoi xam nga toog lu yàgg bëre woo moom Sénégal dunoo gaaw fa dunoo gaaw suul daanaan waaw waaye nag ñu jox ñëpp rendez-vous le jour ci incha allah ñaanal Garga yàlla may ko ndam Franc aussi yàlla may ko ndam incha allah. loolu ngay ñaan waaw loolu ngay ñaan yow kon ñu joxante waat rendez-vous ba ca kanam. sa diggante ak Siteu ba le premier yaag Siteu. <laughs> incha allah rabi yaag Tarkinda bi le premier août incha gën ren ah, dana mi tëddee yéen ak loolu ci luy bax de. lu bari rek. te sa préparation bu méttee métti dégg naa. waaw waaw Ah. yàlla yóbbu ci jàmm la ñuy ñaan yàlla incha allah le premier defe naa ngeen di bëri de août premier mois ci des te daa bu ñu la doon tay tay la nga bëri mhm. mais jàmbaar suñu académie père Kayre nee na ma euh, équipe bu bees la muy nuyu sama doom papa Sow moo ko wax kere ci sama micro mhm. xale bu fa ne parce que ko laaj ci combat mu ne xale bu fa ne mhm. am ci yow yaakaar ndax Papa Sow ma nga xam mooy tête de file ba. Mhm. na bëre loo xam la. te itam xam nga nu ñuy gérer mbër. Père Kayre moo wax loolu kere ci yow. waaw di jaajëfal suñu papa jooju rek ndax baax ma mënta weesu baax ndax nit ku baax rek moo estimé nit moom boo baaxee yaatu rek da ngay estimé. mooy un mooy comme Kayre. fu mu la gis ne la conseiller di la exemple boo xamante ne nii kenn ku ne war nga roy moom macha allah rabbi mhm. ñun nag suñu écurie moom comme écurie yëpp fulla bu jotee rek dañ koy def ba bu entraînement bi jeexee entraînement bi jeexee bu nekk ci biir entraînement moom dañuy liggéey. ku bëgg ñu sunu sunu début dafa yomb. la si laaj. respect respect respect. respect discipline discipline discipline. Ah. loolu la wax mhm. mhm. mhm. jàppale jàppale la. mais yar ak teggin kese. Ah. Euh, tey écrit bi bëree kese ngeen fay def wala am na yeneen xeetu sport parce que dama déggoon mel ni daa am yeneen xeetu sport yu ngeen ci boole wala. waaw ñun am nañ ay partenariat un peu partout. Mhm. mais ak Covid bi nii moom lépp day taxaw. lépp dafa arrêté woon waaw am na benn uh-huh, instant uh-huh. mais nag bon bëgg nañ booy am nañ ay avenir lañu. Mhm. borom yu baax yi surtout. Mhm. bëgg ñu def tamit ay leneen leneen dugg ci MMA wala dugg ci yenn discipline yi. bëri na ci. nga xamante ni day nekk ay discipline yoo xamante ne international lay nekk quoi. suñu objectif loolu bokk na ci. ak suñuy tax ñu jël ay ñoom woo ñoom la ko ñoom ci ñëpp. ñu mën a former ay xale aussi tamit ñu ngi ci projet yooyu. mais ak Covid dara yëngutu dara mun yëngutu mais xam comme que yàlla mi si def jàmm. Mhm. di si déwén moom dina gën a yaatu incha allahu rabbi. ñaata xale ñoo fa ne. ñaata xale comme la ñaata mbër kopp. bon mbër yi bëreeguñu. bëreeguñu ndax ñun bëgguñu bëgguñu quantité. qualité lañu qualité ngeen soxla. waaw bëgguñu quantité ndax quantité bu bëree rek. après dina bëri ko coow. waaw lamb dina am nga convoqué kii convoqué kële mu indi ay coow yooyu yëpp boo jaaree ci écrit ba gis si yu bëree bëri. waaw dund yëpp da nga koy moytu. da nga koy moytu loolu ñu esquiver la. ok bëgguñu bëgguñu bëgguñu euh, lim gu bëri. Mhm. mais lim bu baax. Mm-hmm. lim bu baax daal la leen gënal bu bëri. maximum suñu écrit bu bëree ba bëri maximum. 15 mm-hmm. personnes lay nekk. du passé 15 15 mbër. déedéet du ko passé papa dina tuuti di. non non baax na écrit yi ñu gis ay 100 ay 60 ay. 40 waaw mais bu baax après dañ bëri ay wax ay yëpp te mënoo gérer yëpp. kalan yi ngeen di moytu quoi. kalan yi ak xam nga nit ki bu ñëwee ba wóolu la ba ne ci yow rek. Mm-hmm. war nga mën a delloo war nga ko mën a delloo foo xamante ni yaakaar ñu am si yow. nga def ko ci mooy nga def maximum. mën a percer. ok ndax mbër bu ndaw moom moo métti. pour nga percer moo jafe quoi. Uh-huh. boo xasee ba mu percé nag. ça y est uh-huh, uh-huh. waaw. ok mais booy yi dama toll foo xamante nii uh-huh. boo bëggee jàppale booy yëpp ngay jël lim boo xamante nii li mën a accompagner ñu mën a am combat suñu amee combat nga mën leen jàppale genre yooyu daal mm-hmm. mais tey jël booy yëpp dajale foofu am naa un million personnes yoo xamante après échec bi sa loxo da ciy am da ci am wàll bu ñu bu ëllëg dañ la koy jiiñ quoi. da nga am non da am par responsabilité. nit ku nekk war nga xam li nga war a mën a antan. Mhm. nga mën a antané foo xamante ne ñëpp di mën a antané dina mën a surveiller xale yi xam na ni kii mën na kii mën na mais. boo dee ñëpp am na parce que doon dégg sëñ Modou Niang mu ne bokk bu ñun ñëpp dañuy ñun ñëpp dañuy nekk ci ay écurie. waaw ñun ñëpp nekk nañ ci ay écurie. moitié booy doo leen xam te loolu loolu loolu baaxul. baaxul te bu njëkk ah, écrit bi da ngay xam ñëpp. waaw waaw normalement. te léegi yëpp nag. waaw nga gis mbër duñu xam wàcc écurie bi loolu musiba la loolu baaxul maanaam duñu duñu du cohésion du fa am waxtaan du fa am duñ déggoo du am parce que bokkuñu di contact xamante wuñu xam bu ne nañu julli ci jàkka ja waaw pour dëkkandoo yi mën di xamante waaw di tisante ay soxla waaw waaw war pour chaque heure ba ñu daje fa xamante ok yéen foofu ngeen teg jàmbaar wrestling académie daal bëgg nañ ko trop liggéey bu liggéey bu set waaw ndax dañoo bëgg am ay champion yu mag mais ana Ousa Sow faw ma laaj la ko. parce que ñi ma koy laaj Ousa mi ngi ci jàmm Ousa moom daal moom bàyyi na doon làmb ji rek. non bàyyi na làmb ji waaw waaw ah. mi ngi ci allah rabbi ah. naa ni moom. bëgg nañ euh, fii ak fan daal waaw bu ñu toogee daal ba noppal bëgg nañ daal mu ñëw euh, bokk ci préparation bi incha allah moom Ouza waaw kon xalaat nga mu ñëw bokk ci combat bi waaw moom bëgg na ko ah ci sa combat ak Siteu waaw bëgg na ko quoi dafa war a ñëw bokk ci préparation bëgg na ko waaw bëgg na ko bëgg nañ ko yow itam bëgg nga mu ñëw bokk ci ah bien sûr bien sûr xam nga tamit bon soxla nañ ko fi waaw am na am na expérience te it bëgg na affaire bi quoi bu ñëwee am na lu mu lay yokk quoi ana sa waaja Batika jëf mi ngi fi mi ngi préparé dañ day commencé dañ day bàyyi booy seen combat yi jàll mu doon a commencé moom ku bëgg a bëreel no jëf bëriwul jëf bàyyi na bëre. ah jëf mi ngi si commerce mi ngi si business am. ah waaw ah, mi ngi si business am mi ngi si commerce bi waaw. man dama fay ñu wax ay digganteem ak ay liiru jaan ak. Ah, waaw léeg gars yi ko bëgg a wàcceewaat rek mais Barke daal bàyyi ko mu toog rek Barke moom. ñu bàyyi ko daal mu ñu accompagner rek. suñu amee combat mu ñu accompagner incha allah. Ah, mais ma laaj la si benn combat. Mhm. boo xam ne war na am. Mhm. ñaari combat la sax benn bi mooy Balla Gaye Bombardier mhm. combat boobu def naa ñaari mbëri Balla moom bëri ngeen Bombardier jotu ngeen a bëri. waaw bon ñaari waaye demoon na ci bay wax say seen diggante yaakaar naa ñaari champion yu mag yi bëri. mooy combat am la 31 juillet incha allah. waaw ñaar yu mag Balla Gaye la ak Bombardier bëri woon nañu. bon Balla Bombardier daan ko ñu war a bëriwaat. xëñ na Balla dina xool la koo xañan combat bi bañ cee del dellusiwaat Bombardier dina xam ne Balla dina changé ñëwén mhm. bu baax. combat bu combat bu jafe pronostiqué mi noonu nag. lu tax ah lu tax. non ñaari mbëri danoo xaw a seen ay bëre dafa xaw a ñàkk déggoo ci man. xaw ma si ñeen ci man maanaam ci lu tax mu ñàkk déggoo ah mais tamit xam nga tamit nekk ay combat bu ma sañoon. non maanaam boo nee nañu déggoo maanaam. déggoo wuñ ci bëre ko seen waa seen ay combat style yi ñoo bokkul. style yi ñoo bokkul waaw. style yi bokkul. booy ñaare gis naa ko muy jàpp di di xeex. non style yi bokkuñu style yi bokkuñu. tafaatam gis naa ko muy raam di dire ko style boobu du combat bu du combat bu yomb de. style Tapha Tine arrangé na Boy Niang. moom non yaa ngi may piège fi nekk nii waaye dama ne combat la boo xamante ni dama dama lay kii rek dama ne ndax style Tapha Tine arrangé na Boy Niang. dama ne dañu combat boo xamante nii. waaw euh, combat bu jafe la. combat bu jafe la. maanaam style kenn ki kan la gën a arrangé ci morom mi. ku ci ne sa style bi nga amee. non ñu naan ni sa style baax na waaye en tout cas. waaw non da nga ñu benn. xam nga yow nga bëre. waaw mais xam nga tamit man mbër laa comme ñëpp. waaw non mais tey ma sañoon su ma su ma combat. man style papa bu ñaa moo gën a. mais ah. man mbër laa man bugguma jëm ci combat nit gis sama ay faay wala samay di ko dévoiler xëy na su ma ko waxee ci côté bee kee dina si jariñu wala kii jariñu si man mbër laa comme ñoom xëy na keneen mën na la lan ak lan mais daal du combat bu yomb léegi bu ñu xeexee ñoom ñaar du combat bu yomb ñoom seen xeex du bëri noonu mais du combat bu yomb. ci kaw mënuñoo xeex ni xeex non non seen combat du bëri du xeex bi du bëri bëri yenn bëri yi. ngeen ah. yaakaare non non non non. Ah. Ah. mais côté jàppante bi tamit ku muy avantage. <laughs> waaw ñoom ay bërëkat lañu. non ku ñu jàppante ñoom ñaar ñëpp ku nga avantage. ci jàppante bi ku ne am nga avantage dafa avantage am ci jàppante bi. ñoom ñaar ñëpp ku ne am nga avantage ci jàppante. boo ñaaw bu jàppante tafante te xam ne tafante ne gudd na rëy na diis na mhm. te mën na combat accrochage waaw mën na ko trop ko saan si mbapat yi ko fekkee si mbapat xam ne mën na ko aussi mën na mhm. mhm. Mhm. ma gënul maa fi ma gënal wala suppu kaañe ko actuellement xam nga kenn ëpp ko doole Boy Niang tey def na ay plus de cent vingt kilos hmm. nekk xale am ay muscle comme ñëpp Tapha Tine ko xool xam ne bu entraîné wu sax tëdd këram di nelaw bu yeewoo day am doole mm-hmm. yàllaa ko bindee noonu mel comprendre nga mm-hmm. affaire doole moom boo kenn wax ndax kenn ku nekk mën ngaa avantage ay doole mm-hmm. ba ci yaramloos aussi Tapha Tine il na rëy na moo tax ma lay wax nii daal avantage nañu bi naa ku ne amuloo avantage si bëre tuuti ci xeex bi ak ci jàppante bi. Mhm. waaw ku ci na am nga ci avantage quoi. waaw ku ne am nga ci avantage ci xeex bi ak jàppante bi. waaw jàppante bi waaw. dégg ma ne la man mbër laa bu di wax tamit man mbër laa war ma pronostiquer su ma pronostiquer rek damay jéng te boobaa day xaw a doy waar quoi. dóor daanu mën na cee am. ah mais mu daanu mën na ah, ci làmb bu ne xam nga suñu Sénégal seen dóor mu daanu nekkul looy looy préparé entraîné ko tip tip la rek mbàccum gerte la fu mu njëkk a dal. non mbàccum gerte la rek. xeexu làmb ji moom dangay dóor rek. bu dalee fu mu war a dal rek moom mooy loolu quoi. Balla bu neex la combat bu neex la may jàmm ñu waa ñëpp aussi ah. jubóo bi am ci diggante Gaston Mbengue ak Luc Nicolaï de mi ngi dox lu am solo. Aziz Ndiaye mi ngi dox lu am solo ñu ngi seet ñu ngi dañuy delluwee di ko si ñu dox am solo yàqu yàqu bu am rek dañ sama daata def def ci wax def ci wax wax suñu jàngal ñu ko ko partage ñu jamono ñëpp ak ñu yor kontaan naa si yow nga fay la ñoo passage